man Pape Demba bi tey invité na ma meeting ma dem ci barki dem aji margan mu ngi doon def kii dem naa ci ku ci am ak man relation jën far ba ñoom ñëpp au moins kenn problème su ma nawel au moins ci am naa problème ak kenn kooku moom moo am problème ak man mais man amu problème ak moom barki dem sax bu ñu dajee dama ko nuyu tooñ ko tuuti naan ko ngóor jigaan noonu di ko ko tooñ amu ci problème mais am na ay fee yu mu def yoo xam ne nii dama ko fa fekk dégg plainte bi nga xam ne nii moom laa redynamiser. dafa Mariama saar moo jëloon avocat maître Babacar Cissé signé ak moom contrat pour mu dem toppatoo mi dina Baye ak terrain yu nekk Sing Sing Mariama Sarr moo ko defoon. parce que bi ma paree su fekkoon tey nekk na daal les bonnes dispositions dañ koy toog waxtaanee ndax man waxtaan naa. mais yan la yan la Mamadou Ndiaye. waxtaan waxtaan naa ci président de la république. loo xam ne mënoo mënoo koo mënoo koo effacé. kanti euh, nga ne Mamadou Ndiaye Rahma la ci relation yi neexul mais lan lan yan acte la posé. yoo xam ne yow Mamadou Ndiaye waruma mën a am moom problème xam nga lu tax. waaw Moodu xamante wuñ ci kaw la Moodu ndongol daara la comme man xam na sama kër xam naa këram xam na jabaram xam naa yépp xanaa xamoo doomu Idrissa Gueye mooy soxnaam mënuñ war a am. gisoo dama lay wax. mais vous avez un problème. non non non man awma problème ak moom. xaaral dama lay dama lay wax gis nga pour nga xam ne man damay gis nga dafa am tey tari alxuraan bii di am ci bi élection yu jub si xam nga élection yu jub si dañ ko ko tudde tudde ma ko ñu dégg sama gars yi naan Modou dana ci def lii yow def ci lii yow def ci lii ma ne non on fera pas ça on fera lii dama ko def xamul ma def dama taal sama oto dem fekk ko këram. ànd ak magam sama xarit bi ne gis nga bu bis baa li may joxe sa laa koy tëgg yaa koy joxe ma dem fa fekk mu neex jabaram teral ma may ma yére c'était bien et loolu c'est trois trois mois après ñu ngi woon ci camp ñu parce que ci campagne pour te dire attends pour te dire que man xoolal gis nga man xam nga gis nga man ñun dafa am lu ñu xam mooy la concurrence on le sait moi je vends des voitures Mbaye Gueye vend des voitures mais damay fanaan këram mu fanaan sama kër ñuy waxtaan ñun on connaît que la politique ça peut être mën na nekk benn jeu parce que yow ki nga war a noonu wala ki nga war a travail c'est pas la personne. mais Serigne xam nga kan mooy kan mooy la personne nga bëgg moo yëkkati dóor c'est les Kaolackois. waaw mais Serigne. les Kaolackois ñoom la su amee kuy mere na mere.